may feddali sénégalais ni procureur baaxul ak ni ma ko xamee moom xam na ni moo tax xale yi gis naa bi muy wax ñuy ñuy commenté naan ko yow bu yóbbu mun ngaa dem naan ndox ndax woro moom ci boppam digganteem ak boroom xam na ni waxul dëgg te kilifa yi muy essayé manipule kilifa diine yooyu xam nañ ni moom waxul dëgg Sénégal yi koy déglu yëpp xam nañ ni waxul dëgg àdduna bi yëpp xam na ni waxul dëgg waa lii lan moo ko jar ci àdduna moo tax ñu dellu di woo sénégalais yépp nag suñu plan d'action bi ñu tëraloon waxoon nañ leen ni fi mu toll nii tembe autorisation ñàkk autorisation suñu nee dañuy marche dinañu marche déposé nañ ci territoire bi yépp am na dégg naa fu ñu nangu am na fu ñu bañ rawatina ndakaaru gi may wax waa ndakaaru ni ka dinañu mar manifester bu soobee yàlla 3 dinañ manifester le 29 muy suba dinañ manifester le 30 muy gannaaw ëllëg dinañ manifester le 3 incha allah kenn mënuñoo boole kenn wax naa leen ko léegi dañuy ñuy manifester xeex suñuy droit ak suñuy àq Macky Sall li ko tere nelaw fi ne nii mooy défilé 4 avril bëgg na ñëpp ne cell ba moom mun a def défilé bu rëy a rëy te lim ci jublu mooy gën a nappaat sénégalais yi wan leen ni jënd naa ay nganaay yu bëree bëri bëri ay char de combat ay mété ay lëli ay lëli défilé ba kenn ëppale si ndax fête de la nation ñun ci nation bi lañu bokk waaye calendrier Macky Sall du yóbbu suñu calendrier man mii dañ maa convoqué gannaaw suba ci tribunal calendrier bi changé wuñu ko pourquoi ñun ñuy changé suñu calendrier ci leneen ak leneen moo tax ma ne nit ñi bu ñu sàggan ba Macky am li mu bëgg na ñëpp génn massivement na affaire yi gën a tar dañu ne manifestation pacifique jàmm lañu ñu woote am nañu droit génn dox parce que constitution bi moo ko bind bu ko Macky Sall bëggee tere nit ñi nag lépp lu am ci loo xam ne dina indi xëccoo dina indi pëccëxoo Macky ak police am ak gendarmerie am ñoo koy andi lii muy def nii nag foog ni mën na fees bëtu nit ñi may dalal si xelu sénégalais yi Macky Sall prison mii mënul arrêté sax mille sénégalais yóbbu leen prison fi ne nii prison yi fees na lii mu jël jamono ji naan ay bracelet électronique di ko teste ci waa Pastef yi te li ciy jublu waayam tam mooy fexe ba wane isolé na Pastef may wax ni mënoo fexe ba isoler Pastef ndax Pastef dafa ànd ak Sénégalais yi d'abord dafa ànd ak askanu Sénégal askanu Sénégal moo porté Pastef ci ci boppam waaye Pastef dafa ànd ak opposition bi ñu ànd di xeex li ñuy xeex def benn say moo tax mënoo muusa ki waane ba isolé Pastef bugg a gëmloo ni Pastef mooy parti bu violent mooy parti bu fippu déedéet dafa fekk Pastef nga singali moo tax Pastef taxaw jàkkaarloog yow opposition bi yépp ñoo ànd tey fas yéene jeexal nguuru makisal